dikkati naa te sante diggante président Macky Sall ak Birahim Seck tribune yéene kaay naan maan ca juróom-ñaar fukk ak juróomeelu anniversaire bu déclaration universelle ci mbootaayu xeet yi président Macky Sall def na fab discours le soleil yéene naan kon Sall kay dafa ni coow ca kaw mbootaayu xeet ya ca Genève moom Sall nag daal di jël ay dëggam daal di wax nag ca la nga xam ni nii la àdduna wërngal këpp di doxee tribune yéene kaay naan kon may ma rek moom Sall ma nga naan jàpp ak nguur di ko jaxaseeku askanam di ko yàq yaxee di ko tam ak sal salaatoo jàpp nguur joxoor maajoor joxoor yor leen ku wax jox sa moroom di ko yekk ketembe ci réew moo xam ni moo ko daal di jiite sàll naan leen ñu ne waay lu nguur wax ngeen bañ lum leen sant ngeen lànk faalewu leen nguur dem sax ba mel ni ku nar a nguur lii nag daanaka mooy salfaañi ak ak yelleefug doomu aadama cim réew ndax réew nag bu demee ba nga xam ne nguur amu faak sañ-sañ ka ko jiite sax daanaka ñu bëgg koo neewal doole ba dooleem daal di wàññeeku dootul amati sañ-sañ ci nguur googee lii nag mooy salfaañi ak doomu aadama ndax gi day daal di mujjee nag dëkkub ndumbelaan ku mën sa morom dumaal Birahim Seck naan koon déet sàll néew ma doo kuy waaye bi yoon dama lay xamal ne yor nguur ci anam woo xam ne baaxul ñu salfaañi ak yele yelleefu doomu aadama yi yoreb nguur yorin wa baaxul kumba am ndey kumba amul ndey ci wàllu justice am fi ñii am ñii ñàkk te ña nga xam ne ñoo am am na ci ñoom ñoo xam ne yorin wu bon moo leen ko may sal salfaañi alalug doomu adama joo xam ne dañ leen ko denk moo leen ko may am na ñoo xam ne ñi ngi ci nguur woon nag mal gouvernance Birahim Seck naan kon ci ñoom wala ndax ñoo ñee alalu kaskan wi nga xam ni moom lañ leen dénk moom la nuy jël alal woowee daal di koy jaawaar leeg seen yos daal di koy nguufaan jël roof ci seen poche yorin woo xam ne baaxul ci askanam ndax loo war a jox sax askan daal di koy jël daal di koy dundee injustice boo xam ne day nekk ci réew bu ma sàmba defee nga boole ko ay garaat tampal bu ma dem ba defee moom a kaso fo yallaaxu gën a lante ay nit ci seen biiru réew yaa ma neex yaay wax neexoo ma doo ko fi waxee waaye tam sutanteel sab askan ñii ñooy am fa yallaaxu ñii laay déglu ñii moom duñ fi waxee fa yallaaxu fël gémmiñu sàmba Birahim Seck naan koon askan woo xam ne dañ koo xaaj ñaar ci parti ñii fi am sañ-sañ ñii moom daanaka ay mandi faari lañu kenn bagul ñu leen di naj ak di paccal nii limon cëm di salfaañe seen àq ak yelleef lii nag mooy salfaañe àq ak yelleefuk askan wi yépp nag ndax soo jàppee ni benn pàcc ci askan wi moom ngay daal di salfaañe boo jàppee ni nag mal gouvernance googee ngay xam ne ñenn am ñeneen ci ñenn koy teg de yaa ngi salfaañe ak ak fug doomu aadama askan wi fayallaahu Birahim nan kon wax ak tontu la lii laa yónnee ba leneen ñëw ma tontu ca Le Soleil yéene kaay nan kon en tout cas président Macky Sall ma ngi leen di défendre yéen sénégalais yi moom président Macky Sall ma nga naan leen moom Sénégal day jàpp na ni diggante askan yoo xam ne ku ne dafa am cëggal gu yam moom boppam ku ne am sa taarix am sa démb te it seeni démb ci wàlluk aada ak cosaan te seenuk tey ci loolee bokkul nga benn civilisation mooy dox àdduna wërngal këpp ko war a bokk ñeneen ñi la ñu nekkee yee daanaka baaxul président Macky Sall nan leen waay waay xoolaat leen seen bopp lii baaxul wala moom président Macky Sall ca Genève nan nasaraan si eh, eh, eh, xam ngeen lii jekkul waay las yéen kaay naan kon kaay la jekkul kay moom moo di délibéré bi nga xam ne awokaay yi ña ngi koy def laataa ñuy daal di xam xamle Ousmane Sonko fa muy mujjee turbine yéen kaay nan kon en tout cas fa muy mujjee moom Ousmane Sonko ëllëg lañ koy xam laataa loolu moom ay awokaam ña ngay dóor ca table ba naan fi mu ne amuñu lu dul ab état wayu l'enquête quotidien naan kon en tout cas yet wa dal na fa mu daan dal te ku mu dalit daal di ngay fayul sa moroom démb ca tribunal bu ndakaaru xëccoo ga mel ni na tulleeg màlle diggante avocat yu Ousmane Sonko yeeg avocat yu nguuru Sénégal alxamis gii daa daañu leet Ousmane Sonko wala it ñu firi ko ci ne day bokk ci élection présidentielle yi wala déet l'enquête naan maan waaye ab chance su ndaw surtout toqub chance daanaka moom la Ousmane Sonko desee ci loxol juge ba nga xam ne moo koy àttee léefa yéene kaay naan kon maître Ciré Clédor Ly ma nga naan leen ak ak yelleefu Ousmane koo daal di patam patamee ci réewum Sénégal te nguuru Sénégal mooy responsable ci lépp loo xam ne dal na Ousmane Sonko ñun xam nan la ñu desee te wallaay xamu leen combat bi day bu ngeen jàppee ni jeexal ngeen ko jeexagul ñu nag Ousmane Sonko ba palais présidentiel ba maître Babacar Ndiaye nan leen étape yu la ñu am étape bandi la ñu am état boo xam ne day jël ay faux documents ngir justifier la mu naral Ousmane Sonko maître Larifu nan leen li nga xam ni moo mitti sama xol dëgg mooy nañu patam patamee procédure yi lépp nag ngir patam patamee Ousmane Sonko ba du bokk ci élection yi agent judiciaire bu état bu Sénégal ne leen yéen xam ngeen ni Sénégal bu dul woon état de droit kàddu yii ngeen fi yëkkati du ngeen ko yëkkati wala ngeen jàpp nguur goo xam ni moo leen jiite institution di jokkoor maajoor jokkoor leen te dara fekku leen ci état de droit ko waral agent judiciaire bu état bu Sénégal naan leen bu dee gore gënu leen ñu koo def gënu leen gore it fonctionnaire yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal ñu leen di tuumaal di leen atte ci tribunal bii maître El Hadj naan leen daañu xam ba sub dëgg ndax yàggatul kan mooy wuyu ak kan mooy bandi ci réew mi maître Adama naan leen ka nga xam ni moo dàq Ousmane Sonko faase turam ci liste électorale day ci yoon la ko teg te guddal jël la moo fi am rek ndax la waxoon la ñuy daal di dëggalaat turbine yéene kaay naan kon en tout cas wooteb démocratie ci réewum Sénégal wooteb fair play daanaka yàq la ndax saabu élection jub see lii la ñuy daal di nemmeeku ci réew mi ay xastanteeg saagante tamanteeg waxante lu ñaaw tuumalante yoo xam ne day mel ni tulleeg màlle rawatina nag manipulation boo xam ne askan wi ku ne mën na caa tàbbi te bunte tàbbee day maar day taali maar day taali tribune yéen kaay naan kon mar day taali googee dafa dalagul sax Bougane Gueye Dany ñaari weer des ci élection présidentielle yi Aloïse Diouf daal dinay tegee fële candidature am bi yoor yoor naan kon daal di fekk si Bougane le mandat yéen kaay kon Aloïse candidat la woon fas yéen jàppale na candidat bu gëm sa bopp bi l'évidence yéen kaay naan kon Aloïse Jules Diouf nee na bàyyi na bosam fas yéen jàpp ci bu Bougane Gueye bi le témoin yéen kaay man kan moo da moom Anta Babacar Ngom bokk ci ñi samp seen dënd ci élection présidentielle ci réewum Sénégal gazeti nañ ko ci Podor Anta nga naan bari nay gaañu gaañu yoo xam ne samay ñooñ am nañ ko ci lii waaye dara grenade lacrymogène yii nga xam ne ñu ngi ñu koy jor duñu teree yegg fa jëm fa jëm moom moo di jël réewum Sénégal 24 heures yéen kon waaye ndànk rek ak tegu xel Mamadou Lamine Diallo ma nga naan yéen ñi soobu ci parrainage def leen ndànk ndax a leeral na leen ko ñi nga xam ni a parrainer mooy ñi nga xam ni seen i tur mi ngi ci liste électorale yi attention libération yéene kaay naan man attention maître Moussa Diop boo na ko yokkal garde à vue am l'observateur naan kon coowam la ndax Aly Ngouille Ndiaye convoqué nañ ko ci sûreté urbaine ngir déglu ko Ousmane Cissé ex DG des Mines daal dinañ koy woo ngir déglu ko libération yéene kaay naan kon en tout cas loo ci mënti dégg ping pong diggante maître ak enquêteurs yi moo am ci xool ndax document yi mu jexe yu baax la am déet le témoin yéene kaay naan booba élection bu représentativité syndicale yi am na niki démb daanaka akus lëf ci liggéeykat yi ñoo daal di dem daal di wote ji liggéeykat yi nag mel ni ku daal di dëdd wan ginnaaw centrale yi boobu vox populi mag may xamal ni président Macky Sall diggante ñaari million jàpp juróom ci million daal di na koy jébbal ñaari junni ñaari téeméer fanweer ak juróom ñetti militaire invalide yu nekk ci réew mi moom président Macky Sall nag dafa bëgg ñoŋal seenug dundin pay gi door na te day wéy ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog